ñu renforcer gën a formation xalé yi ndaw ñu nga xam ñoy ñooy ci bijouterie gëna wut ay équipement yo xam peut-être partenaires yi pare nañ pour ñu lekkolo ci loolu mettre en place aussi fi ben école de bijouterie joaillerie et de gémologie dafa na loolu moy doon leadership bi nga xam Sénégal mom la wara incarner nek ben dëkk bo xam day exporter ay bijoux finis labellisés made in Sénégal loolu mooy dooleel suñu bijouterie nous nous ñuy une bijouterie à l'extérieur des bijoux labellisés en Sénégal Nous nous ñu mettre en place un comptoir je pense que le directeur wax na comptoir depuis deux ans pratiquement mettre sont ko sur place mais mu fonctionnel tout simplement par TVA alors que comptoir ce lu bari lay régler ci le bijouterie la traçabilité suñ dee traçabilité dinañ teg ay carnet de registre d'achat carnet de police bi nga xamni jafé jafé bi nga xamni euh bijoutier yi dañ nañ ko am ci walu jënd ak jaay muy indi ay recel ñuy dem ay tribunal police su boba lolu dina ko dindi lolu dina aussi def lo xamni moy protéger même le client nga xamni ne suy jaay dina xam fi mu jaay ñu bindal ko keuyit su ëllëgee lu ci mëna am ñom dinañ xamni li la moy développement moy protéger ñep